asalaamaaleykum mbokku internet yi tey ñoo ngi fi dalal dalal di kii di Serigne Fallou Mbacké muy surtout Serigne tuuba di sëriñ te ñu ràññeeku ci yu bari te ñu mu dalal ñu fii ci këram fii ci yoof ñu nar waxtaanee yu bari tey. alors sëñ bi balaa ñoo tàmbali waxtaan bi ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokku internet yi. asalaamaaleykum yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe seen mbokkum taalibe Serigne Fallou Abi moo leen di nuyu di leen siyaare di leen baalu àq. di leen baalu àq sëñ bi euh, ngay murit muridisme tey muy en tout cas benn tarixa boo xam ne ku wax Sénégal wax ku wax Touba ne mouridisme mouridisme yow noo koy jàngatee par rapport ak l'islam waaw question boobu lu tekki boppam la ndax mouridisme muy baatu murid ci baatu arab mooy ku nekk ci yoon yoon woowu nag nga nekk mooy yoonu lan mooy yoonu lislaam loolu nag Sëriñ Tuubaa daf ko leeral ci mu mujaddid yu njëkk yi nga xam ne dañuy ñëw di yeesalaat diine moo tax mu naan lil Mustafa nawaytumaa yu jaddilu sunnatuhul xaraaru wa inni ahmadu loolu mooy baasu muridisme dafa yeesalaat ci diine yonent bi sallallahu wasallam euh, ngir rek kënuy diine waxtu wu ne day am ay bànqaas yoo xam day dem ba am rax yu ci bokkul am ñu ñëw yeesal ko ci dafa am ay ñetti fànn yoo xamante ni benn la waaye ñett la muy ahlu sunna jamaa ak ñaneen ñi nga xamante ni ñooy suñu mbokk siixa yi waa ahlul bayti yooyu ak ñaneen ñi nga xamante ni ñooy niti suufi yu ci boo xoolee lislaam sax ñetti xaaj la imaan islaam ihsaan dafa mel ne wàlli tarixa ci soufisme mi ngi sukkandiku ci ixsaan googu rek euh, ñoom nag dañ cee développé lu bëree bëree bari ci wàllu naka la nit ki mën a doxale diggam ak boroomam ba tax na ku ci mel si Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani ci wàllu tarbiya liggéey ci loo xamante ni mbooleem nitu tarixa yi dañ ko respecté ci loolu jiital ko ba koy woowee maqaamam imaamul awliyaa ba ci ku ci mel ni Cheikh Ahmad Tidiane liggéey ci lu rëy bañ koy woowe xadmul awliya xarnu bu ne nag ka tëj xarnu ba xadmu la ca mooy koo xamante ni defar nañu bëree bëri Cheikh Ahmad Tidiane yàlla ñu ko yàlla fayal ku ci mel ni Abul Hasan Saasili yu di Cheikh Mouhamad Abul Hasan njiitu tarixatu Saasili yu boobu ndax ñett ñi Sëñ Tuubaa daf leen cité ci Masaalikul Jinaan bi muy am ay presque quinze ans rek muy wax naan seenu yoon yoonu yàlla la foo ci jàpp rek dina la àggale ci yàlla daa di nag cité ci tiijaaniya jaylaani ak eh, abul xasan ndax ku ci ne ñu ngi lay dàkkantale saw dàkkantal sëñ bi nag dafa ñëw teg dàkkantal woowu teg fële ne muridullaahi ne tuuba loxoom waxusnul ma ab gi ci alxuraan muy ab dëkkam nga xam ne bu ñu la waxoon ne kii mooy fondateur bi yim tuddee maaxuus minallah tuubaa lahum wasnul maab ak euh, muridullahi boo dajewut ak ñu ko xam dëgg mën nañ laa laaj ne la ku sos loolu parce que dendalewu ci daray boppam jël turu boppam àndala ne xaadim rasulullah liggéeykatu yonente bi ndax dañ daan def mbooleem kënu diine yi niñ daan defee tarixa boo demee ci Égypte da nga fa fekk lopp cinquante tarixa badawiyu rafaaxiyu ñu ngi bokkoon si ci tarixa bu ñuy wax sa bandi yu nga xam tarixa yu bari ci la sosoo da ngay comme nekk sëñ Fallou dem ba war a sos dara rek ñuy wax Fadilu Fadilu mooy dañ lay dàkkantale waa kër diw loolu moo indi ku ne ñu lay def sa dàkkantal moom nag philosophe bi mu indi boo jëlee wilaaye teg fee sax ci wàllu xam-xam xel daf ko nangu muy ne yoonu yàlla kon kenn génnu ci du xaadir bi du du tijaan bi du kenn parce que noonu sax la ko gisee woon fu ci ne jaar na fa daan fa joxe lijaasa boole euh, ku doon réformer la mais ku dajale la ñëpp la dajale yow mi ne duma murit de yaa xamut lu baatu murit di tekki wala yaa awut ci yoon wa waaye ca daf ko waxaat sax ci beneen waxin ne lu ma jege jege te newoo ci ndigal bàyyi wali tere yaay ki ma sori loo ma sori sori te ne ci ndigal bàyyi tere yaay ki ma jege kon philosophe boobu lay wax. kooku mooy Serigne tuuba loolu mooy mouridisme. loo ko nekkul ci ndigal bàyyi wa tere jege woo. d'accord loolu mooy baasu. d'accord li nga mooy dëgg-dëgg lislaam daal mooy murid. d'accord hmm. euh, loolu mu muy lu am solo. Hmm. alors euh, këru Serigne Touba quand même xam nañ ci ay mag ñi baax kenn mënu leen na lim yooyu ngay doomu sëtu Serigne Fallou euh, ñu war a nekk seeni exemple ñu war a nekk ay royukaay ñu ngeen war a tegu ci ay ci tànk ñooñu gaa ya ngeen ci mais nan mën a justifier tey. yéen ñii ci sët yi ñu leen di gis yu mel ni ay soirée ci ay daje waalis ak yu mel noonu. xam nga loolu nan nga ko mën a boolee quand ak. xam nga ngay tudd du yéefar hmm. la. jullit la jullit de yëpp koy wax ashadu an laa ilaaha illallaah rek ashadu anna muhammadu rasulullaah rek jullit la Muhammad Abul Hasan Saasili yi dafa daan toog ci fas wi ne ko xutbul xawsu am ku taxaw di jiin yor ndënd ma naan xutbul xawsu baa nga nee mu toog ci kaw. boo xoolee suñ mbokki xaadara yi ci tagada yi suñ mbokk Baay Faal yi xay ni musique yi nii mën naa wute waaye boo demee ci chrétien yi seen rythme musique yooyu dañ naan dafa bokk ci àdduna ci doxiinu nit muy ngelaw ak garab ak nit ni muy doxee ngelaw ak riit mu misik la ba seen téere bi nga xamante ni bible ñëpp xam nañ ne ci waxe yàlla la ca la jógee dañ koy rythme musique voilà layaluma musique mais ndax dara luñ sib wala lu araam bu ko ñëpp doon def du tax mu sansé fam nekkoon lu bon bu ko ñëpp doon def du teemu bon lu baax it bu ko ñëpp ba woon du teemu baax waaye nit duñ ko siise ci benn jëf bu ndaw rek nit di def lu baax lu ne benn geste présence bu ndaw rek nga àtte ci nit amul solo nit ñi dañu àttewu ci image nit di muuru di nekk ci jàkk ja fekk amaana sax njàngam soriwut amaana sax xamu ko ndax yàlla dafa menace ñooñu ne waylun lil musalliina la siina hum han salaatihim saaxoona wala siina hum yuraaxoona wa yamnaxoona maaxoona yéen a ngi julli de mais rëbb naa way julli yi parce que ñi ko seetlalul ñoo tax nit dem ca Kaaba ga ne làbbayka mu ne laa làbbayka am na ci wàlli bu baax xisa bu gudd boo xam xaju fi da doon tawaaf am ko dend ak moom moom waxut làbbayka mu laaj ko ko mu ne ko damaa ragal bokk ca ñi yàlla naan laa làbbayka ndax ragal yàlla am ñun ñooy naago waaye saa boo déggee menacé rek kenn xamut kan la looloo la daloon iblis laxanatullahi alayhi ba muy tudd xasaasiilu ci peye gis bis ñu ne am na ci malayka yi kuy bañ muy xool kon kan la biñ naan isjudu li aadama ndax xaaluuna minal malaykati yi sujootu luñ woon muy ñenn ñi nga xam ne ñoo nekk néew yu kawe yi ñoom jibril yeneen malayka yi ñoo sujoot mais ñoom sujootu lañ ñooñu al xaaluuna minal malaykati ñooñu sujootu luñ aadama mu defa ne ci xaaluuna yi la di xool kan la far ndekete moom la joxañ ba dal fas juddu ilaa iblisa aabi wastakbara wa kaana minal kaafiriin yad wa dal ko ndax dañ ko doon wax lu tax doo sujjoot kon loolu dafay tegtal ne euh, doomu aadama duñ ko àtte ci jëfiinu présence am ci benn geste rek nga àtte ci nit kenn ko def ñi nga xamante ni xam nañ dëgg wàllu suñu boroom suñu boroom xal ban salil lay xool mooy xool bu laab xool bu la borom maqaama bu dee jàng nga téere boobu ñuy wax maqaama mi ngi leeral ni am na ñoo xam ne nii ci seeni sikkim ak seeni kaala bu ñu weetoon nag jigéen nit ñee tee ñu sonk bëti nit ñi moo leen tee def lu ñaaw lu ne am nag seen naturel mën nañu def li ñuy sentir ci ba sax mu doon erreur sax tuuma topp leen ci fekk tuuma jooju duñ ci dara seen xol boo xaroon yàlla rek moo ci nekk yaa ngi dégg ci am na ñoo xamante ni waxtaan wi dina ci ñëw ci kanam lañuy ñuy dund dëgg dëgg dëgg dëgg bukkul ak erreur yi ñuy def tuuti nit ñi di leen ko attewoo nga gis ñoo xamante ni ni ñuy dëddoo di dëddu dëddulu ni ci xasiida ni ciy téere dëddu lu ba nit ñi di leen gëm di woo nit ñi ci welaaya amuñu ci dara xamuñu ci dara dinañ ci ñëw waaye John Marabout la ñuy wax euh, ngeen war a nekk la continuité maanaam ngeen war a en tout cas wëyal li fi mag ñi bàyyi woon mm. ndax gënu la jekk ñu gis leen feneen fudul ah, foofu xam xam nga yow bi nga nee seen rek nga defoo lay sàbbiyan sàbbiyan wala kaana nabiyan donte yonente nga xale nga bi ngeen di xale rek nga nga nga layal ñëpp ndax ak xale la mag ñi doo gis ñu def ko waaw mais di ñaanal sama bopp ak ñu mel ne man ñëpp ñuy bàyyi xel li ñuy sëñ Tuubaa di diggal ndax ci téere ba la ndax koo xamante ni da ngay toog ñu lay jox àddiya doo liggéey yu bëree bëri wàcc la waaye war ngaa man di jaamu yàlla di ko ko sant foo toll te kenn wutu laa gis nag barab boo xamante ni eh, du noonu. d'accord léegi yaa ngi tudd waaye murid yi ñoom ña nga fañ nekkoon rek kuñ jàpp ci sëñ Tuubaa luñ mën a gis ci yow du tee ñu jàpp la loolooy murid hmm. waaw loolu mooy murid sëñ Tuubaa de lépp lu mos a taq ci yonente bi mos nañoo jël weñ ko tudd rasul daan ko ci naxa bañ jafe ne koo doyee dara fekk rasul gee tax rek mu koy jënd di teg waaw lépp luñ ne yonente bi la rek mu bëgg ko xaaj bii ngay dégg fii ci àll bi ñu bëree bëri du ma aw ci benn baat bi sax muy nuru ñàkk war ma waaye suñ mbekki pulaar yi dëkki àll yi yépp daanaka waxuma la seenu jur waxuma la seeni jaxasoog ñoom bu amee tey sërif la rek naar bu jóge ci àll ba ñëw rek bëgg aw bëy wala xar rek ne sërif ñu ñu teral la ndax bëgg diine rek xaw nañ cee gaañ nit ñi léegi lañ ci yeewu waaw nga xam ne loolu day tegtale ne seen bëgg yu yorante bi da tax nit ñëw bu doxandeem ñëwee sax ñu jox ko njabootam jël seenu jur lu ne fanatique googu Sëriñ Tuubaa dafa ñëw raw ci ñëpp moo tax yàlla fayee ko loolu ci njabootam te ñu bari ci ñun bu ñuy xool du dàq julli du dàq jaamu yàlla waaye Sëñ Tuubaa rek la ñu xool ci kon ñu nit nañu bàyyi xel loolu bu baax a baax waaw waaye man de bàyyi naa ko xel man ba ku ma ci woo benn geste bu ndawit de man naa am ka nga yaakaar sax la ma ca xam wala la ma ca gëm wala la ca man mënu ko xamu ko d'accord léegi lan yow quand ci nga bokk ci benn milieu boo xam ne am na ñoo xam ne dañuy bëri lu ñuy woote woo yenn maqaama yi euh, yow loo ci xam lan mooy ci sa njàngat hmm, waaw dañoo wax ne wàllu aw wàlliw yooyu képp koo gis mu di ko woote woo bu dee amu ko du ko amati képp koo gis mu weddil ko nit ku ko amit du ko amati képp koo gis mu am ko te amul ndigalal waxit loolu mën na yàqu ndax wàlliw du maxsuum yonante mooy maxsuum xam ne wàlliw yoo xam ne nag mën nañoo dem ba àgg daraja yoo xam duñ yàqale waaye li am solo daal mooy li ma gis man ñu bari di tiitaroo sax dadutug wilaaya ndax kës fu du dara abul hasan saa si liyu def daan wax naan laxnatullaahi alay iblis day soppaliku waxtu wu ne di dem fu ne ku juddu mu xam foo nekk di yàqal nit ñi lu la dal nga ne iblis sa moroom lu ko dal fu nan la mën a amee xam-xam boobu loolu kasfu la lum ñàkk-ñàkk solo ñu nangul ko ko kasfu googu mu am bokkul ak xaybu xam lu ñëwagut ak yooyu du xaybu xam lu ñëwagut mooy nga ne léegi mi ngi ñëw fekk mën naa jàdd ci yoon wi xamoo lan ak lan lay indi xaybu nag mooy nga xam na mbir ma demee te du sensé loolu yàllaa ko moom kës fub seytaane bu rëy boobu jëriñu ko dara ndax parce que bu doon jëriñ dara jëriñ dara iblis waaw kon ci moo ko ëppale ñoo ñëpp kon kës fu du dara ay xam naa nangam ak ñaan mu nangu sax du dara ja am na ñu xam bu déggee dara rek mu am am ñu xam seen tawxiit li ñaan di nekk nekk jaamu yàlla seen tawxiit ñoom ak cant lañ jël def ko seen ñaan lu yàlla dogal ci ñoom rek nangu nañ ko ba tax na. mbir mi ci ragal yàlla la ndax alxuraan dane iblis laanatullahi alayhi daxiifan kaana daxiifan ku néew doole la waaw mais euh, daraja du dara woote wooy maqaamaaki karaamaaki ma man naa nàngam ak def nàngam ak loo man rek am na ku man lu ko ëpp anama suuf si jël na ko bu yàgg ca la yàlla na mu ci moom xamoo ko ndax yàlla moo naan dinaa def te du def te waxam du dañ mën na jël jénn jëmm ñi xam liy tasrufaat xam liy tajriyaat ci wàllu wàll yu mën a tas man a dem ñëwaat mën a def yeneen ak yeneen loolu iranien yi bind nañ ci téere yu bari lu ma lay wax nag boo demee ci téere bu tudd Idrissa wala yenn téere perse yi dañ ci gis ci téere axlul kasfu yooyu ñu bind li may wax ci ñu wàll yuy def di def ay téeméeri jëm muy ñëwaat ak la ca yàlla na mun a doog xam benn mooy nar dimbali la wala nar dimbali nit ñi war a nar ci yow la neen ndax mën na jël koppi nit jël yow mi baax yóbbu àjjana jël d'origine bi yóbbu sawara indi la ñetti yoon démb am xaw ne ñëw na bon ñëwaat na ci àdduna nekk ku baax di wàlliw wala wàlliw ñëw tey baax ëllëg mu ñëwaat di bandi moo tax maa demoon ñëwaat sax du dara jala yàlla na mu ci yow xamoo ko ndax démb baax nga tey xamoo lan nga bi ci desit mooy miracle yi ngay wane noo def ak jaamu yàlla yi la sa boroom sant noo def ak sa ragal yàlla ndax yow loolu jërul nga tiit ci sa boroom mi nga xam ne moo la may te yàlla de du changé ca lam waxoon du ci jóge mukk te lam diggee it du ko ba mukk nit ñi ñu ngi rawantee ci ragal yàlla am na ñu xam ne nii maqaama mi ñuy wane duñ ko tey lu leen barab la bu ñuy toll rek ay nit bëgg leen a fitnaal wala bëgg leen a sonal yàlla wane loolu Sëñ Tuubaa ñi ko doon jéem a jam euh, fetal ya ca Gabon ba mu koy nettalee ak cant la ko def ne bañ ñëwee di ma sànni ràbb ak fett yàlla delloo ko ca ñoom nga xam ne day wax ne sax du moom du dara lu muy jëfandikoo ba muy dugg ci géej gi wala dara loo xamante ni lu ko ci jéem a génn la taw xeetam la ku ko ci fekk sax mu ne ba mag yàlla comme Ibrahima yaa naa ko ni bardanu salaam ala Ibrahima ba ko fa ay mo nawleem di fekk bëgg koo dimbale mais maxaama du dara maqaama mi gën a rëy mooy maqaamam ragal yàlla maxaama bu doon tee dee kon yonente yi duñ faatu maxaama bu doon tee lekk ka naan kon yonente yi duñ am ak yeneen ak yeneen yoo te wax ci worma. lenn dong lañ wuteek ñoom muy gën ñoo ragal yàlla ñuy séenu ci ñoomuk yàlla waaw ci àdduna dafa amul solo Suleymaan dafa amoon jinne yu bari am nguur gu rëy di yonante nga xam ne fa la ma yàlla joxe ci moom misaal ne li ma may Suleymaan duma ko may keneen mais pharaon yi ñoo jiitu Suleymaan ndax Suleymaan baayam Daawuda ci xeexu jaaloota taaloota ci lañ ko nomee mais baayam daawda euh, ci téere Muusa la nekkoon nga xam ne yonent yàlla musaa jiitu na ko lu yàgg jiitu waajuram te musaa fa la fekk faron ya te faron ya ba tey seen pyramide nga fa. Mhm. kon xam nga ki la jiitu jiitu la bàyyi fa luy des yow woo fi looy des te li alxuraan waxee dëgg Souleymane li moom kenn amu ko mais ana la Souleymane amoon tey. ca daraja jaag maqaama jaag naaw ci ngelaw laag li mu wane ci miracle kenn mënatu koo wane ci àdduna ne socca dox ci ngelaw lii ami jinneem ak rawxaana yëpp yëpp dem na di seetu dara doo dox sax bañ ne sax bant bi Suleymaan ko moom te muy lu wér. wala fii la dëkkoon loolu yàlla la ciy jàngale. waaye yonente ga nag bu deñ ma nga cee nawleem alxuraan seetal na ko wecc boole ko ci nixamal abdu innahu awaabun ya ne Suleymaan mi njabarkat ñu ko waroon ñooy njabarkat Suleymaan yonente bi yàlla la. waaye gisoo benn màndarga ki nga xam ne lim am buñ ne laajoon ko am lu kenn dul am ci àdduna neen Suleymaan ndax yàllaa ko wax hmm. waaye anamu te Suleymaan wilaay yi dëgg la daan wane. wilaaya weesuwul kooy jinne yi di la topp ak rawante yeeg soixante-dix nabi yu di la wër ak boroomi turu yàlla yu andi woon siis ba ci mi na jinni ja ba balxiis di ñëw hmm. kon Souleymane moom lépp lu nit di am tey rek muy ismullahil ahsam ak yëpp ay taalibe ma ko daan yor ab taalibe ma indi bank ba pas pour moom andil ma ko léegi xifrit na mën na ko indi temps de minute kii indi ko léegi boroom ismullahil ahsam te lépp yàllaa ko nettali dëgg la waaw kon hmm. miracle du dara ragal yàlla rek moo am solo d'accord léegi yow nan ngay jàngatee lu ñuy woowee maqaama. waaw ci li mën a tënkee. waaw maqaama moom yàlla moo koy joxe ndax yàlla mooy xool ab jaamam mu def ci moom lu ko neex am na ci jaam yoo xam yàlla mën na leen ba a topp dara am na ci ñoo xam ne da leen di jéggal ndax yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne kuñ jéggal ku bokk moom lekk ñu jéggal la. Hmm. tey li nit ñi ndamoo di tiitaroo naan. bari na ci suufi yu xam wax nañu wax yu rëy am na ci ñooy gis ñu ñu sàggan ñooy jàppe yooyu noonu la suufi yuy wax mën nañoo wax lu gën a rëy yi téere suufi yu bind da ngay gis téere suufi yu bind ne yonent bi gane si ne ma nangam mu jaaxal nit ñi jaxaral te am na ñoo xam bu leen gane woon duñ ko wax am ñoo xam ne nii dañuy bind ni am naa kansu douze kansu yi wàcc ci àdduna bi kansu raxmaa ci raw ku nee ngi woy sama maam kansu nangam kansu mooy dencu biir rek waaye ku ne nag sa dencu biiru mbóotu biir moomu na la ko yàlla joxe nga ne kën su nàngam nga xam ne wàllu yi kën su yooyu seenu sag la kën su raxama ba muy kën su kën ndimbal ba moo ci ëpp solo hmm. ba ca des mooy sirul masun nga xam ne ku ne moom lay tiitaroo bépp wàlliw danaan sirul masun xam naa bu ma ko waxee dana jaaxal nit ñi waaye man am naa sirul masun hmm. sirul masoon alxuraan la. lan mooy sirul masoon. alxuraan la sirul masoon imaam xasaale ko def. dafa am na ñaar dafa am lu ñuy wax sirru am maqaama maqaamam sirrul masoon bokkut ak sirrul masoon <laughs> waaye man am naa sirrul masoon. loolu mooy lan. waaw sirrul masoon ñi mooy sekkere bu ñoŋ bu yàlla denc fa mu ko denc ba ca des muy yeneen xeetu darajaat yi muy ay afraat ay xaarif ay xutbu ay abdaal ay nangam ak nangam ak xod man de du ma ne ca laa bokk. waaye awma benn ambition ci àdduna lu dul nekk xutbul xawsu àdduna bépp buñ ma ko doon jox ma mel ne Trump raw ko ma mel ne kuy tëdd ci mbedd mi wére di ñëpp xeeb ma ma nekk xutbu bu ma ko gënal àdduna bépp boo ko amoon bis dina ñëw nga ñàkk ko ba mel ne mosoo ko am mm-hmm. koo yër bàmmeelam nag bul xam ne muy demee te waxtu dee bu jotee rek nga xam ne dee rek moo fi sës ku weddi laajal ñi seen waxtu jot loolu rek mooy sama ambition ci àdduna loolu rek laa bëgg ci àdduna te loolu képp ku may ñaanal nang ma ñaanal ma nekk xutbul xawsu hmm. loolu dong laa bëgg xutbul nan la ñuy def boo ko déggee mooy président awliyaaw léegi nan la ñuy def ba nekk loolu nan moo war a nekk sa taxawaay yàlla dong moo koy fale yàlla dong moo koy fayee fa xaalu li maa yurit yàlla mooy def lu ko neex ci lan la nit ki doora nit ki a def gis naa ko jaamu yàlla yore yi daara def lu ne ci àdduna nekk ko bokk ci ñu njëkk ñi te àggut ci xutbu gis naa ñoo xamante ni tagg wane ñu ngi leen koy tagg jàppe leen màqaama yam ak te duñu ay wàlli boroomi sirru lañ waaw yor ismullahi al ahsam ak def ak dindeeg am màqaamam wàlliw taxuti ne xut bu daal yàlla dong moo koy joxe yàlla mi koy joxe nag laa koy ko neex ñaan waaw ci sax boo ko nekkee hmm. mënoo weesu doon jaamu bi yàlla bu koy liggéeyal dong ragal yàlla war la bu neexee sax bis penc doo taxaw dalay effacé am na wàllu yoo leen effacé yàlla ci nga xam ne bu boobaa boo yëgee sa bopp lu toll ne tarfatal xay ni mu génne la ci ni may waxee effacé mooy yow doo doon sax ku nekkati kuy taxaw dalay effacé comme ku musta am hmm. moo yàlla doon buur bu am kattan bu mat a ragal buy def lu ko neex nit ñi euh, duñ xool ki bëgg àdduna tey ñu bëree bëri dañuy kër këri ba sonn am un million sax jafe leen yow boo mënee yor un milliard wala lu ko ëpp maye lépp bay xëy doo yor cent francs kooku boo ko bëggoon di nga ko téye di defe na àdduna am na ñoo xam rëyut ci seeni xol waaye nag dafa tollook na jamono ju ne ak ni ñu dunde jamono Suleymaan yonte bi yàlla la woon lépp luy taaru àdduna rekk amoon na ko waaye wàññiwu ko dara waaw moo tax yëf yi ci xol la nekk di gis ku la nuru lu dëddu fekk boo xaroon xol ba dëdduwul waaw na ci ñu bëree bëree bëree bëree bëree bëri di wax nii rek li ñuy wax gëmuñu ko nañ doon ay jullit dëgg dëgg muy dëgg ci ñun bu nit am dara rek nga jiiñ ko yenn yi wala di ko tuumaal wala di ko dëkkale foo xam dëkku fa te xamoo ko waaw doomu adama bi da ngay ragal yàlla ci jaame yàlla yi. man léeg-léeg nga benn barab boo xam ne nii. Mm. xeetu milliers yooyu la ma daje ak genn jigéen gu saa yi saayir bi muy jéem a jël sama numéro di wax ak man sax xaw xaw ma ko. damaa du kii mais far sama respecté doomu aadama rek ndax man ku ma gis damay ragal yàlla ci yow mu waar ma ba jàngal ma ci tasawuf loo xam man xaw ma ko woon ci téléphone benn bu ñu wax tabari ya téere yooyu mu am waaye ma ci yu bari whatsapp leeral ma bi ma commencé di wax dara ci suñu waxtaan rek la ne ma loolu jàng na ko ci téere nangam bu suufiyu wax ma ko ci tabari yi am mu intéressé ma sol lu gàtt di fecc leeral ma ci lu bari ci suufi yu loo xam man sax xaw ma ko woon man maanaam nit kenn mënu ko kenn mënu ko jugé ci fi nga ko man mu mel ne dof bu tëdd nga xalifa bu mag fekk daal la ko yow ko yàlla mooy def lu ko neex mooy fa xaalu li man nag bëgguma lu dul yàlla gawuma lu dul yàlla wóoluwuma lu dul yàlla sëñ Tuubaa ci lool la ma nàmpatal ci loolu laa nekk lépp nag lu may dund lu dul bëgg am toq ci jege yàlla laneen lu ma wax ne nit bëgg naa ko dama lay nax lépp lu ma am ci àdduna bis dina ñëw ma ñàkk mu mel ni mosuma ko am waaw innama amwaalukum ko awlaadukum fitna seeni doom seeni alal seeni njaboot fitna boo tëddee lu yàgg sonn boo taxawee sonn boo demee sonn ana ab la yàdd barkaati démb maa ngi koy ñaanal wér ak jàmm ak salaam fu ne way nañ ko fa farawaat di njàkk tey jii ñu bari sa xoolatuñ ko Macky yi fa lay mujj kaneen noonu kay Abdou Diouf mii wenn temps toog na ko fi ñàkk ko Senghor mi leen jiitu woon moom mi ngi ci suuf yàlla na ko fa yàlla dimbale ñeneen noonu ñeneen noonu ana borom daraja yi daan dox ci ngelaw yi ana ñi daan waaw léppay léppay jeex léppay ci àddina faramason yii duma tooñ kenn mais organisation bu mës a tëgg tas na seen pharaon baatu pharaon yi ñi roy muy égyptien yi ak seen pyramide yi ak seen civilisation yooyu ñuy roy ñooñu dañoo xëy niil Musaa leen yóbbu ba ci dex rek toroxal leen fa toroxal gu xam kenn su koo gis fa la na yam nguurug Isiptu yam fa li la alxuraan di nettalee ñu ko jiitu ci ay civilisation yu ko jiitu ña daje woon ak daje woon ak ñeneen ak ñeneen ak Namrood ñëpp jeex ñii dañuy jeex am na buur bu amoon doole bu tuddoon Baxtansar ginnaaw Suleymaan kooku dafa dugg ñëw daane xaykalam ba mooy jaamukaayu yàllaam ba jàpp fa yonte yàlla prophète Dalil ak yeneen prophète bu daan ñaan kii daanu daan ko defal ndànk rek bu waxtoom jotee mu daanu li ma la may ëpp lima la may moo ëpp li ma ko may ana Baxtansar ku ko déggati yilifoon na àdduna Namruud yilifoon na àdduna xaw na mi bokkoon na ci ñi xaw a yilif seen jamono ak Suleymaan ak Alexandre le Grand sul Xarnayni moo duggoon ci kiiraayu lëndëm googee nga xam ne fa la mawul xayaat nekkoon ku ko naan du faatu àndoon ak xudar bu fekk fa xasra fiilu mais ñoom ñoo ñëpp gisatoo ci benn trace boo xamante ni misaaloon nga ci ci lenn lu dul la leen yàlla defal ña ci des moom perte nañ ñu yilifoon àdduna yëpp gisatoo leen. li nga xam ne solo àdduna amul solo ragal yàlla rek moo am solo jigéen lu mu rafet rafet bis dina ñëw mu ñaaw ba doo ko bëgg xool. nit dina dem ba lekk lu neex neex dina ko bëgg a wanaasu du ko man comme ba mu leer nit ni mu juddoo bu ko xoolee sax day tiit ci boppam suma xalaxanaanut watan min tiini googu muy netti leeg yooyu nekk tuq màndi yu am na boroom xam-xam sax yuy taawil naan nit sobe la ndax ci sobe la juddoo mais ruuga ca dugg moo ko laabal ca bu juddoo dañ koy raxas mu dëkk ci raxasu ndax bu deewee noonu nit bu deewee rek lim doon lekk ci lu bonum tuxam ak yëppam day génn ay dem àllam génn nga xam ne buñ ko yeexee tàllal sax mu lemu buñ koy dugal ci bàmmeel rek muy saxe nëb même bu nëbutit dugal nañ ko ci bàmmeel rek loolu mooy l'essentiel mais ruu moom du faatu ma ngi ci xaalamu ruuxe juróom benneelu asamaan la ci am solo mooy doomu aadama bi fàttaliku moom mooy kan fàttaliku kan mooy boroomam waaw ci bi ko suñ boroom neeru alastu bi rabbikum xaaloo balee booba balee la fañ def fañ def jëmm nag dafa bokkul doomu ci ban boobu ñuy tudd ñu ko liggéeyee muy ban bu ñuul bu wow bu dëgër ban boobu lañ jël dugal ci ruu jëmm jooju nag moom moo ragal metit ba tax not bakkanam di ngëneelam waaye ruu moom ku xam boroomam la te du juum moo tax Sëñ Tuubaa daan wax naan seytaane dafa jëfee mucc boo ko xamee day toog yebal ay gaayam muy àdduna ak yi ko wër ak yi na boo xamee ay gaayam day téye ay gaayam yebal say gaay muy sa bakkanu bopp ñu ne ko mbàkke lu ciy muslim mu ne am kilifa rek waaw lu bëree bëree bëri àdduna mooy poussé nit rek di ko nax di ko nax ba xëy rek dee dikk mu rëccu te yàlla maywut dara ci àdduna li may daaneele benn xaaris billaa yàlla ñaawaay bu rëy rek lay maye boo deewee gën a ñaaw boo dee dund gën a ñaaw am na it benn aarif boo xam moom la wax seexu tarxiya imaam Junaydi imaam di mos nañ ko laaj ne ko na xaarif billaa dina def yenn yi nga xamante ni jaaduwut mu ne waaw ñu ne ko ndax lan mu ne du maxsuum fekk wax na subhanallah ñetti yoon bañ cee wax ne waaye yàlla mën na ko caa mën na koo jéggal comme ni muy defi jaamam moo tax li am solo rek nañu rafet njort tey tuubal yàlla te koy ñaan mu dimbali ñu te jéggal ñu te yërëm ñu bari na koy toog di naw naan sama sëriñ sama bàyyi sama nàngam ba fàtte koo ñaanal nañu tuubal yàlla te xam ne yàlla guddi sutura rek la ko binde bari na sutura yoo xam bu ko muri woon yaa ngi dégg bari koy naw doo ko nawati moo tax nañu muuranti ay ayib te nekk daal dëgg-dëgg ay jullit asalaamaaleykum wa rahmatulah. merci beaucoup sëñ bi jërëjëf.